Jauh mas, mina nih sa ginawa. Jauh, wait lang, muna. Muna. Muna nga bay. Jauh ka Jauh maju maji. Kita lain lain lain Wih, pas, kan Nice. Nagawa apa ini. Ma, sumala na kaya tala. Ba, dapat Ah, abul mana? Kamu yang nice. Wah, kaya kok kaya kita cuma kok sini wah, wae kok sini wae. Wah, kalau nggak setok menurun wae, akan kau itu wae. Apa benar? Wah, yang tak kaya kan kau bukan yang sesuai kalian ya. Kalau bukan kan kau. Hebat aja aku lima. yang kan udah kan cerai lagi. Rumah entok, rumah entok. Lu boleh esok nggak boleh. Lu boleh esok. Wah, lu mati tuh. Wah, udah sini tuh. Wah, mana dulu mana lapan manis berkesangan berkesangan selekas dari mabuk apa kata berarti itu tenang ya wajib bu kedua kali kata dia kalau pakai kalau jadi ya emangnya yang konten hei, harus akan anak saka pakai kata Wow, mereka yang kata dua, itu eh eh jangan main tak, jangan main tak, tapi gue nggak salah, salah gue. Gue nggak salah pun benar, kata deh, nggak, ah, nggak salah. mooy nga sa bopp ah kay yoroon kàngaan te rek nga jàpp ne yéen dugg nga nga sa bopp de. eh waaw waaw kooku. oh booy jox sa ah booy saa. booy jox sa kii kay. booy jox booy ñu ànd moom bay waa. ci yéen doy na. ah dindi ñu. moo ko fa juddu. te yoroon kàngaan. waaw man ma yor sama kàngaan. ndax aw ma bu laa sal aw ma bu laa. kon naa la. yow nga kàngaan de. fu ma kàngaan de ma xool. waaw mais tey yow waroo ko def lu tax non instruit ba. très bien yow yaa ko def. non ah, non da nga non instruit. xam nga dama non instruit. ñaari dama dund non instruit. ñaari non instruit. maanaam yow bindoo pour mën a voté président élection présidentielle bii di ñëw. bindoo. yow doo ko teew. yow si kàttan de. ay ay ay. jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm. yow nag lu sa problème. man moom bind naa. bind naa waaye sama kàttan. dana dana ko bëggoon a mën man koy jaay moo ci déglu sama neex. waaw léegi yow am ne dafa nga nga dem jëli ko. 1000 laay fay. waaw loolu euh, dama ni am nga chance bu rëy. pour mën a bokk élection yi di ñëw. waaw ah, am naa chance pour mën a bokk. alhamdulilah rabbil alamin moom nga tanzanien euh, bi. yéen askan wi dafa leen wax ngeen jëli seen carte d'identité ndax nag ci réew mi ngeen bokk yéen a war a far yéen a war a folli te dañoo dëgmal élection 2019 te sama kat mooy sama baat yéen ñëpp dañoo ko xam. donc Paa kaddu gi rafet na jiite nañu yow jërëjëf dëggal la ko waaye baax. waaye booy bii ku ko xool xam nga ne booy bii ak waa Sofane bii wax nañu ne yow naa. neex na yow. waaw oui ma fan la ne yow fu mu toll nii naa la tuddee fan laa koy def. waaw man nag yow naa sama kàddaa hai hai hai chồng chồng chồng hai thầy hai thầy tay mặt chồng hai quay quay quay quay quay quay nè quay quay quay nè Baik, selamat wow, selamat selamat dulu ya. Selamat selamat dulu, kamu kamu kamu kamu kamu